bu mag moom mooy mbër mu mag ah moo gën a rëy salaamaaleykum yaay nuyu naa nuyu na fay salaamaaleykum asalaamaaleykum ah, kon loolu sa dara gën a mag yaa ngi mel ne kuy wàcc paase nan nan lay jàngal asalaamaaleykum comme bi ñëw na ne leen ko bisimilah yow dama gën a gani yayin da sai abu kuke ya sa abu kuke kawon bur magla da man fu nekk ko ba na man fu nekk tëgg naa fa dana amul benn boy bu ndaw boo xamante ne mos na ma téye bëri di musuhnya tadi no nomor eh kalau tuh nomor no nomor unggul nyangkal lo <laughs> hati suruh komba lo <laughs> sabtu yang no <laughs> nomor yo ya dah Hah? wow eh kalau yo ya ya udah kan ini kan dong buru kok nggak ngasap dia dari mana orang yang nak abis mana yang abis sedang lah ini ayo mau kemana demi jaxase mbër mi ak benn mbër mi mbër mi ñu dóor bi ñu métti man xam nga man combat yi maa ko daan waay ku tax jàppal ma ka maanaam ñaaris ku ma fa njaay matara ma ca loote na la woon na la ngalam laa la tuddee ndax ñu gis ay usoo jam ana ko bon borom sax man la àndal moom la àndal yow àndal moom yow usoo jam moo ànd ak yow ndax usoo jam nee na bis moo la jaare damay fi nga dem maanu peere la may may xolam man la koy may la ko may yow usoo jam est ce que xam nga social mi def ci dëkk bi yow man lay laaj doon yow usoo jam est ce que xam nga teere yi mu jàppale biir ci dëkk bi yow da ngaa jaal yow da ngaa jaal ba yàqu xam nga xam nga teewoon ko lu tax mu neex. laay. Basiru lu mu nar. Basiru lu mu nar. Basiru. Basiru lu mu nar. Basiru. Basiru lu mu nar. Basiru. fa yemb. Basiru. Basiru Gombe. Basiru. xam nga dama bëgg a xam. loo bëgg a xam. papa bu papa aussi. tey jii déglu ma wax la rek déglu déglu ma wax la rek. day day may ay terrain. ay kat mi kessel mesel. legui dama lay laaj. ñaari question wala ko da ngay noppi suba dama lay laaj. waaw bu su Dia gi ni to toog. waaw dégg day may ay terrain. wa da daa nekk di def ay social. wa legui dama lay poser quelques questions xol ndax man nga ko trouver wala mo ko trouver. ay questions boo trouver mu may la terrain boko trouver mu dàq la ci nit yow laaj ma lu la neex ma tontu la. comme lu fa dañ koy waxe ci français. Gitu gitu. Ya dégg nga ñi gën a seetaan naan ñorndi ñorndi. Jërëjëf France dañ koy waxee ci français. France bi yàgg na wala yàggul. Eh xoolal jërëjëf France laa la wax. Ah, boo koy wax nga ci français di nga xam ndax France bi yàgg na wala yàggul. Comme jërëjëf France tout court. Jërëjëf France. Avec vous, là. Pourquoi le guide m'a dit Maï Mala. Nous, Maï. Moussa Gay. Usain Bolt. Usain Bolt, en amour. En amour. Là, il faut que ça Qui merde, yo, merde, yo. Eh, on le calme, t'es ni. T'es du frère, mais t'es du frère. T'es du frère. Wow. T'es du Couscous dormi depuis hier. Léegi cere bu ñu laalo. cere bu ñu. laalo cere bu ñu laalo koy s'appelle tout simplement couscous glissé. léegi cere bu ënn. cere bu ënn. waaw cere bu ënn ñu ko couscous oh, oh. donne-moi le nom d'un animal qui ne pleure jamais. Ah, le nom d'un animal Le nom d'un animal qui ne pleure jamais.